إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk jullit yi gannaaw ba ñu sante suñu boroom seede ne moom dong moo yeeyoo ñu koy jaamu seede ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy jaamam bi mu yónni woon ci ñun yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ila yawmi diin suñ xutbab tey bii ñi ngi koy jëmale ci fàttali fan yi suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam mujje ca dundam gu tedd googee ci kaw suuf mu tàggatoo ca ak sahaaba ya tàggatoo ca ak njabootam tàggatoo ca ak umma bi ba ila yawmi diin bokk suñu borom day moo dogal amul kenn koo xam ne dana mucc ci dee képp koo dégg ñu ne la deewul loolee ca seytaani la jóge suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam suñu borom nee na ko bis day dana mës a ñëw nga dee ñi nga xam ne nii ñoo la wërit ba ilaa yawmi diin bis dañuy ñëw ñoom ñépp ñuy nekk aji dee ndax musuma defal benn bakkan mu sax ba faw waaw ndax yow boo dee ana keneen keneen ko fi sax e yow mbokk julit sa yonente sallallahu alayhi wa sallam ki ëppoon taxawaay ci kaw suuf loo xam ne nii du ay julite ko seede bal ay yéeféer ñoo ko seede ca kàngam ya gën a mag ci ñoom ñoo seede loolu ki ëppoon njëriñ taxawaay ci kaw suuf keroog ba ko Michael Hurt di wax gannaaw ba mu tëddoo ñaar fukki at ak juróom-ñett di gëstu ñi mas a jaar ci jamono di segg di segg di segg ba mu jël ca téeméer téeméer yooyee kam teg ca kaw mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam doonte ne moom ab chrétien la waaye nee na li sikk sàkk mu munul am amul kenn koo xam ne taxaw na ci kaw suuf defar na kaw suuf jëriñ na àdduna lu mel ni li muhammad jëriñ àdduna loolu amul mbokk ku mel noonu la yàlla xëy xëy jël ko waaw ndax yow mi nga xam ne danga naan père de famille nga am médecin nga am lu mu mën a doon ndax jàpp nga am na importance bu tey nga dem déedéet mbokk bis mi ngi ñëw suñu borom nee ne kullu nafsin zaiqatul mawt képp kenn ci yéen dana mas a mas dee doonte ne da ngeen jaar nag ci ay bànneex ak i naqaar ba baa ngeen di ñëw mbokk suñu borom mi ngi préparé sahaaba yi ndax xam ne ne faatug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu rëy a rëy a rëy la looloo tax keroog ci xajatul wada ba muy tàggatoo digganteeg muy faatu mi ngi nekk ci ñetti weer mi ngi wax ak nit ñi naan eeyéen nit ñi xuzu anni manasikakum fa inni laa adri laalli laa alqaakum baada amihim haza yéen nit ñi xool leen lu baax li may def ngeen ma ciy roy ndax jàpp ma ne kat gannaaw atum tey mii danaa masa dajate ak yéen mbokk yonent bi alei salaam bu mu jógee ci ajam googee daanaka lu yées ñetti weer ca la ko suñu borom yàlla daa di roof benn feebar boo xam ne mi ngi avertir ne mi ngi dem loolee yàlla wàcc ci moom aaya yu mu joon a wàcc ci alquran ca bu ñu xoolee ci ajug tàggatooga suñu borom nee woon na bis nekk tey matal naa diine ji mottali naa samay xéewal ci yéen gërëm naa nii rek laa bëgg ngeen dunde ko lislaam gannaaw bi si keroog amul lenn lu xaraama ci gannaaw bi si keroog amul benn jaamu yàlla bu wàccati waaye nag gannaaw bu wàcc na aaya yi wane ni nit ñi nañu ragal yàlla xalaat képp kenn ci ñoom bis bi nga xam ne daañu la takk di la delloo sa borom jalla wa ala mbokk loolee gis nañu yonent bi alayhi salaam yàlla roof na ko feebar dem na ba sallallahu alayhi wa sallam mënatul taxawal boppam mu daal di woo la nga xam ne mooy ali ak fadl ñu daal di koy jël jàpp ko diri ko ba mu ñëw yéeg ci kaw minbar bi daal di xutba doomu aadama yi ni ay yéen jullit ñi xam leen ne sama daje ak yéen day du ne ci àddunaati sama daje ak yéen ma nga nekk ca la nga xam ne mooy déeg ba ma yàlla dig ca al ca àllaaxira déeg boobee ca laa leen di xaar sama borom won na ma ko mi ngi mel ne maa ngi jàkkaarloo ak moom déggam boobu nga xam ne nekk na six cent kilomètres carré ku ca naan dootoo mar ba faw yal na yàlla boole ñu ca ña koy naan mbokk suñu borom subhanahu wa taala ci lii la may suñu yonent mu xutba nit ñi keroog bokk na ci lam leen xutba mooy ngalawaay nit ñi moytu leen ragaluma ci yéen day ak ñàkk waaye li ma ragal yàlla ubb ci yéen àdduna ngeen nekk di ci jëkkante di ci xëccoo ba àdduna far leen alak waaye nag la nga xamee ne mooy jàkka ji bunt yu bari ubbeeku na fi jóge ci ay kër nañ ma tëjal bunt yépp ba mu des la nga xam ne mooy buntu Aboubacar Aboubacar day xawma ku ma mas a defal teraanga lu dul fay naa ko ba mu des Aboubacar moom yàlla rek laa koy bàyyee mu fayal ma ko kon nañ tëj bunt yépp te bàyyi fi buntam loolu muy wane ne moom day dem Aboubacar moo nar a jiite jumaa ji moo nar a jiite jullit ñi mbokk suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ca la nga xamee ni nii mooy bisam yu mujj yooyee kenn sikki sàkkwul ci ne ñaar fukkat ak ñett yi ko fi suñu borom bàyyi yépp amul dundam nga lu ne lépp jàngale la lépp waaraate la waaye nag ba mu demee ba xam ne mi ngi tàggatoo daa gën a taral waaraate yooyee gis nañ ñee ki nga xam ne nii mooy Umm Fadl mi ngi ñuy nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day bokk na julli gum ñu mujj a jiite mooy la nga xamee ne nii mooy julli timis booba mi ngi feebar taril ñu la nga xam ne mooy suuratul mursalaat ba nga xamee ne nii loolu pare na ba géeg a jotee mu daal di jóg pour dem jiite jege daal di daanu miir ñu ba mu ximmili ko ñu yëkkatiwaat ko mu daanuwaat miir ba ca ñetteel bi mu ne ndax nit ñi julli nañu ñu ne ko ah déedéet yow mi yàlla yónni yow la ñuy xaar de mu ne ko wax leen Aboubacar mu daal di jiite mbooloo mi keroog la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mujj jiite. yonent boobee sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ca la nga xam ne doon na ko wax. keroog ba muy mujj tàggatoog jurit ñi ay waayi fexe leen di rafet njort ci seen boroom jalla wa ala ca suñu boroom boroom jéggal la ak boroom yërmande la ca mooy jullit du doon koy stressé koy découragé koy dugg ci ay fitna di jaaxle bay dem ci ay bokkaale déedéet lu mën a xew rafetal njort rek ca ne suñu boroom yàlla subhanahu wa taala insha allah ëllëg dana baax allaaxira it nga rafet njort ci sa boroom daana waxit ne yàlla na yàlla rëbb yahudi ak nasaraan yi nga xam ne dañoo jël seen bàmmeelu yonent ci def ko ay jàkka ngalla waaye sama bàmmeel bu leen ko def mukk mu nekk xabru boo xam ne dañu fay daje di fa bokkaale ak borom bi jàll waala doonte ne loolu yàlla defal na ko ko mbokk suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam bu ñu toppee la nga xam ne mooy ay ndénkaaneem bokk na ci lu mujj a dénkaane mooy ngalla waay maa ngi leen di dénk julli maa ngi leen di dénk ngeen rafetal ci ñi yàlla teg seen loxo ñuy seeni jaam naam dénk nañu julli war ñu importance julli sallallahu alayhi wa sallam feebaram ba jàpp na ko lu toll fukki fan ak benn yoo xamee ne nii la ca ëpp dañ ko doon lëng ba baa muy ñëw ca jàkka ja ngir jiite mbooloo ma amul lenn loo xam ne nii rëcc na ko ci dundam lu dul loo xam ne nii ñetti fan la ak ñaari julli ca mooy géeg ga nga xam ne moo jiitu bisu ca bisu ñeenteel ba ak fajar ga nga xam ne ca la faatu sallallahu alayhi wa sallam loolu it lam lam la ñuy jàngal mooy la sahaaba yi jàngoon ci moom looloo tax néew na nga daan gis kenn ci ñoom di banki julli mbooloo mi ngi noonu gannaaw ba ñuy yégee loolu gis loolu ci seen yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk julit yonent boobu ba mu demee ba xam ne yàlla mi ngi jeexal ak dundam dimanche ya nga xam ne ca la faatoo woon nga xam ne ca altine jëlee faatu bokk na ci lu mu def mooy dajale soxnaam yépp waar leen delloo leen ci yàlla ndax ñoom ñooy njabootam te ñooy reyukaay ëllëg mi ngi noonu delloo leen ci yàlla soxnaam yooyu nga xam ne ñooy ay soxnaam ci aljanna mi ngi noonu bokk na ca ñooñee ñépp doomam ja Fatima mi nga xam ne moom la dese woon loolee tax na ba gannaaw loolu feebar ba taraat na ci moom ba Fatima di wax naan waa kar ba aba ay waaye tiis bi wàcc sama baay ndax moom yàlla dafa defoon mbokk amul kenn koy faatu lu dul dana jaar ci sukuraat sukuraat lan mooy njëriñam mooy day faxas sa desitu bakkaar di yëkkati say daraja ca borom bi jalla waala ca lépp lu yàlla jox doomu aadama bu dee yonent bi alayhi salaam ñaar la ko cay jox looloo tax sukuraat yi doomu aadama di sukuraat moom duubul sukuraat la sukuraat sallallahu alayhi wa sallam Sayyidatuna Aïcha mi ngi nettali ne ñi ngi ko tegal benn këllum ndox bu jëlee loxo bi dugal ci raay ci kanam gi ne laa ilaha illa allah inna lil mawti la sakarat kenn yeewul ñu koy jaamu ku dul yàlla ay waaye dee day am na man di teg métit goo xam ne day ëmb yaramu doomu aadama yépp lii mbokk moom la suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam nekkee baba la nga xamee ne nii suñu borom yàlla dogal na mu nar a tàggatoo ak la nga xam ne mooy àdduna bokk na ka nga xam ne moo ko fekke woon muy soxnaam sa nga xamee ni ni ca néegam ba la faatoo bal ca kawam la faatoo muy sunu yaay Aïcha ma nga xam ne moo ko uufoon ci sukuraatam bu tar boobee bokkoon na la yonent bi alayhi salaam doon baril di wax allahuma xfir lii warhamni wa alxiqni bi rafiqi l aala ey yàlla yal nag ma jéggal yal nag ma yërëm yal nag ma boole ca àndandoo yu kawe ya ñooñu suñu borom yàlla wax ne min annabiyina wa siddiqina wa shuhadai wa salihin loolee mbokk mooy la nga xam ne ma la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko woon di ko wax di ko wax ba suñu yaay Aïcha netti li ne ca la demee nag ne bali rafiqil ala bali rafiqil ala ndax suñu borom moo ko doon tànnaloo loolee sallallahu alayhi wa sallam ca la faatu faatu ba yàlla tuddoon ci boolemi doomu aadama wax jii ma lay wax yépp fekk na jàkk jaa nga fees dell jullit ñépp ña nga triste ña nga toog di xaar lan mooy xew ba mujj xabaar bi génn ñu ne ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatu na loolu mbokk bi mu faatoo jàkka ji kenn mënu ko dégg ñoom ñépp ña nga àndandoo di jooy bala nga xam ne taarix nettali na ko ku mel ne Omar ibn al-Khattab sax dem na ba Saalib ne bu ma déggati wax joojee bocc jaaseem ja saxaaba yi mag ak ndaw ñoom ñépp saalit la yàllay dogal ci dogalam na fekk abu bakar loolee da ngay gis ne a nekku fa woon lu waraloon loolu mooy keroog altine jooje abu bakar mi ngi jiite ci fajar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di puus ba ci fenêtre yaayu Aïcha bi nga xam ne daa ubbeeku ci jàkka ji mu ubbi rideau bi saxaaba yi yépp jàkkaarloog moom Aboubacar gis ko daal di arrière ba saxaaba yi kontaan bay bëgg a dagg seen ak julli yonent bi daal di leen di junj ne leen yeggale leen yeggale leen yeggale leen loolee boobu mi ngi doon tàggatoo ak ñoom la yonent bi mujj a tàggatoo xeet bi mooy yeggale leen la nga xam ne mooy seen ak julli. ca la Aboubacar xëyoon dem jàpp ne yonent bi féex na xabaar bi dab ko mu ñëw ñëw fekk jàkka jaa ngi fees ñépp ngi jooy mu dugg ci biir néeg yaayu Aïcha. fekk suñu sang ba sallallahu alayhi wa sallam mu muri ko fóon ko ne ko wallahi tedd nga bi ngay dund tey nga bi ngay dee yàlla du dajale ci yow ñaari dund ñaar yàlla du dajale ci yow ñaari dee comme mooy ki nga xam ne moo war a relever drapeau l'islam donte ne moo gënoon a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keneen ko dul moom waaye yàlla dëgëral ko mu daal di yéeg ca ko minbar ba daa dina Omar toog leen ñépp a toog mu ne leen hey leen dong laa leen di yégal man kaana yacbudu allaha aw man kaana yacbudu muhammadan fa inna muhammad qad maata koo xam ne nii daal dangaa jàppoon muhammad ngay jaamu xamal ne muhammad moom dee na waaye wa man kaana yacbudu allah fa inna allaha xayyun laa yamuut kuy jaamu yàlla nag ne xam ne yàlla moom mi ngi fi du dee ba faw wa ma muhammadun illa rasul muhammad du dara lu dul yonent mooy jàng aaya ba suñu borom di wax ca ali imran 144 wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul muhammad du lenn lu dul yonent ay yonent jiitu woon nañ ko afa in maata aw qutila in qalabtum ala aqaabikum ndax bu yonent bi faatoo wala ñu rey ko sax da ngeen di dellu gannaaw fa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a ku dellu gannaaw day du lor yàlla ci dara mbokk ba nga xamee ne Aboubacar wax na loolu ca la julit ñépp nag doog a dellu si ci réalité ca la Omar ibnu Xattaab jàpp ne ah man day musuma xalaat sax ne fàtte woon naa ne aaya bi ci alxuraan la bokk nañ dellu ci xaadimu rasul anas ibnu malik radiallahu anhu mi nga xam ne ba yonente bi alayhi salaam ñëwee madina mi ngi toll ci fukki at yaayam yóbbu ko jox ko yonente bi ngir mu koy doxal ay service mu dund ak yonente boobu fukki at anas ibnu malik nee na man day wallahi waa madina kenn mësu cee xam bis boo xamee ni nii gën naa taaru gën naa leer gën naa neex bis bi yonente bi alayhi salaam gàddaaya màkka bay dugg si madina waaye madina day xamuñu benn bis bu gën a naqari bu gën a tiis bu gën a lëndëm keroog ba nga xamee ni nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatu na waaye aayo yooyu Aboubacar jàngoon nee na amul benn kër booy romb ci Madina lu dul yaa ngi dégg góor ak jigéen ña ngay ànd ak seen jooy ya naan wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul muhammad yonent la woon ca mooy ñun jurit xam nañ ne yonent yàlla muhammad du suñu yàlla yonenti yàlla muhammad du moom la ñuy jaamu waaye yonenti yàlla muhammad moo ñuy nekkoon ki doxoon suñu digganteeg boroom ci dañuy jottali ak jaamu yàlla looloo tax mbokk faatoom nga rëy lool faatoom nga màgg lool keroog bi nga xamee ñu ne aboubacarin siddiq radiallahu anhu ànd na ak omar ibnul xataab ñu ne nañu seeti ka nga xam ne mooy umu haani nekkoon bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi daan ànd ak ñoom di ko ziyaara ci bi ñu demee umu haani da leen a gis rek commencé di jooy ñu ne ko ay umu haani ah sa doom de yonent yàlla muhammad lam nekkee ca boromam day moo gën lim nekk ci kaw suuf mu ne wallahi jooyu ma loolu li may jooy mooy wax yu dootul wàcc jóge kaw asamaan aboubacar ak omar ànd ak ñoom ñëpp di jooy mbokk kii mooy yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mbëggeel ga nga xam ne dañ ko koo bëgg dafa war a sax ci suñuy xol comme nañ ko waxe woon ci xutba yu jëkk ya waaye lan moo ñuy jëriñ ca mbëggeel googee mooy ñu xool kii nan la nekkee woon ci kaw suuf ñu jéem a dëppale suñu dund ak moom rawatina bokk na liñ ko mën a royee kenn xamul nu mu toll waaye la ca gën a am solo mooy li alak li ëpp ci doomu aadama yi tey te ñu junj ko sànq mooy àdduna bëgg àdduna xëccoo taaru àdduna yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ne dimanche ba nga xamee ni nii ci suba la war a faatu juróom-ñaari dinaar la dese woon mu daal di woote daal di koy sarxe woote arme yi mu daan yor pour xeex daawuñu xeex mu toog ca kër ga rek naan jërë jaageen jëfewaay daal di sarxe arme ya woolam yoroon ci ay jaam goreel leen jamono boobee mbubb bi mu daan sol pour guerre mi ngi leboon benn yahud 30 kilo pepp yu mu dundale njabootam sallallahu alayhi wa sallam jamono joojee suñu yaay Aïcha nee ne guddi keroog diw gi nga xam ne moom la ñuy niitoo ca néeg ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatoo dama koo leb sama benn dëkkandoo moo ma ko lebal mbokk ki nga xam ne moo jiite woon royaume yi ki nga xam ne moom laa la wax sànq ak taxawaayam kii moo joxe misaal bi ca mooy yow doomu aadama lan moo la indi ci kaw suuf mooy da nga fay ñëw pour jaamu yàlla lépp lu nekk ci àdduna dalaa war a jàppale ci jaamu yàlla googee lépp lu nar a dox sa digganteeg jaamu yàlla ngalla waay nga fexe wane ko gannaaw bàyyi ko xel bu baax a baax mbokk lii ñi ngi koy fàttali jamono boobee yonent bi alayhi salaam di faatu mi ngi tolloon ci juróom benn fukki at ak ñett mbokk xam ngeen loolu bariwul de ci juróom benn fukki at ñett buñ koy wax ñi ngi koy wax ci atu weer boo koy xool ci atu calendrier soleil bi ngeen di utiliser mi ngi nekk à peine soixante et un ans yu teg quelques weer loolu la yonent bi alayhi salaam dund ci kaw suuf loolu it mu lay jàngal ni dund gi gudd ak bari amul solo li am solo mooy lan nga def ci sa biir dund googee mbokk lii mooy la nga xamee ne nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàggatoo na ko xeet bi dana am benn laaj bu ñuy laaj waaw bis bu màggee nii bis bu tiisa nii lu tax sahaaba yi jàpp ñu ko di ko fàttaliku bu ñëwetee ñoom ñëpp ñu woon tiis mbokk yi sahaaba yi ñeme wuñu woon créé jaamu yàlla gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon daañ ko def bi su tiis waaye ñeme wuñu woon loolu lu mel noonu it mooy laaj bi nga xam ne ñu bari dañ koy laaj waaw ñii di woote woo sunna lu tax ñoom bokkuñu ci gàmmo gi la ko waral du lenn lu dul ni yonenti boobu sallallahu alayhi wa sallam nekk naag doomu aadama yi juróom-benn fukk ak ñett musul dajale sahabaam ya ca jàkka ja gàmmool leen ba mu fi jógee sahabatul kiram wuutu nañ ko fi lu jógee daanaka téeméeri at ba baaw ñi jeex amul kenn ko mas a woote ak gàmmo bañ fa jógee waa mazahibul arbaa téeri imaamu malik yaa ngi nii abu hanifa ngi nii imaamu ahmad a ngi nii téere shafiya ngi nii amul benn téere booy dem fekk fa ñu ne nii la ñuy gàmmoo mbokk looloo tax critique wuñu kenn koo xam ne da nga ne da ngay gàmm loolu si mbiru bopp la waaye daal ngir keggi tuuma comme day am ñu naan waaw lu tax ñii di woote sunna duñu gàmm ndax dañoo bëgg lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam déedéet wallahi lazi la ilaha illa huwa yonent bi leen gënal seeni ndey ak seeni baay ñoo leen gënal seeni bakkan waaye daa fekk ne dañoo bëgg yonent ba duñu jaamoo yàlla lu dul lu yonent bi digle lii dong la su ko defee mbokk julit suñu yonent mi ngi noonu bis na démb la tàggatoon ak xeet bi ñu jàpp ne tey mooy fukk ak ñaarit nañ xam ne bisub tey bi ci la tàggatoon ak xeet bi tàggatoo boobee ñu leen jàngal képp kenn ci ñun na xalaat nan lay tàggatoog àdduna lu mu yàgg-yàgg da ngay ma sa tàggatoog moom nañu ñaan yàlla ca góor-góorlu ku nekk ci ñun sa tàggatoog àdduna doon tàggatoo gu rafet gu yàlla gërëm yal na yàlla jàppale ñu ci yal na yàlla julli ci yonentam julli ci ay njabootam julli ci ay sahaabam ak ña koy roy bi ila yawmi ddin allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi l-axirati xasana wa qina azaba annar allahuma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal-fusuqa waj'al واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا اصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من عذاب القبر من عذاب الجنه ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين